Euh, am amna nak ñoo xam ne bu ñu xamee LD ak jaar-jaaram euh, ak xadaram ak taxawaayam liñ doon gën a séentu ci yéen mooy ngeen jàllar bi mag yi ak ñi mu àndal waaye toll nii euh, ci ci ngeen ak ban bilan ngeen def ci seen ànd ak mag <coughs> waaw bilan c'est vrai que jàllar bi suñu cri de guerre. waaye fait, ko qu'on a nañu fi ak parti socialiste de 93 à 98 ensuite ñu euh, 98 dem jëli Ablaye Wade di ko mocc be mu ñew fekk def nañ pôle de gauche xex be Ablaye wad yek ci nguur gi ñu taggo en 2005 génn dem CPCG 10 LD ensuite euh, Front Sigil CPA Front Sigil Sénégal Benno Sigil Sénégal ensuite Benno Bokk bon contre Ngour, nous suñu constante ce que jamono ji laajee dañuy contre Ngour gi suko jamono ji laajee ñu and ak Ngour gi bilan bi ñuy def ak euh, Macky Sall nag ko c'est un bilan vraiment positif nous sommes comptables euh, bilan Macky Sall bi ñun ñëpp ñu ngi bokk benno bokk yaakar te. kon tey bokk ngir ak mom bilan bu xajam ba li ak manké manké bilan du parfait moko waaye man ni mako gissé bilan bi xajamul amna nak lo loo ni c'est pas parfait waaye pour man bilan bi c'est largement positif ñun noonu lañ ko gisee. buñ ko jàppee seulement ci li nga xamante ne moo fi xewoon jamono jii jamono ji ñu weesu euh, jamais dans l'histoire d'un pays euh, d'un président fini nii Sénégal mu enregistré en une année plusieurs morts des dizaines de morts loolu bu fekkoon sax am na as tuut la nga xamante ne jekkoon na ci loolu yàq na lépp. déedéet pour man loolu yàqul lépp. gis nga en 1963 il y a eu 40 morts aux allées du centenaire bi ñuy il y a eu treize morts c'est vrai ay morts ken ñaanu ko yàlla waaye nañu seet lan mo indi mort yoyu. pour man il y a eu des émeutes Mort m'om ken ñaanu ko mais il y a eu des émeutes Lolo indi mort yoyu. responsabilité bi gëna reuy. pour man du ci nguur gi responsabilité yi bi moy ñi nga xam ni dañoo bëggoon a déstabiliser nguur gi. mais boo leen jàppee noonu pourquoi wu leen ko woon noonu en deux en deux parce que en 2011 responsabilité bi da ngeen ko tegoon ci ndoddug nguur gi ren gii nii ngeen naan responsabilité jógewul ci nguur gi. 2011 responsabilité bi dañ koo tegoon ci doddu nguur gi fii aussi. lay Wàdd ak Macky Sall kif kif waaw yow noonu nga ko gisee waaye ñun gisewuñu ko noonu pour moi, responsabilité certes c'est partagé mais la plus grande responsabilité incombe à ceux qui ont amené les gens à l'insurrection. 11 euh, morts, ce n'était pas pour une insurrection, c'était des manifestations. Moi, am ay bavure. l'objectif était très clair, c'était de faire tomber Macky Sall non pas par la voie des urnes mais par une insurrection populaire Lolo tax mo am moor ensuite dañoo war a xool loo xam importance l'armée la violence légale est détenue par les forces armées et les forces de sécurité. Nicolas LD la wax de LD nga LD l'a di. xam nga xam nga li wax LD la dit wax li ngay wax nii du waxi LD waaye dit tamit. Ah, euh, liberté démocratie liberté de manifester et tout euh, tay euh, violence légale légitime armée xam vraiment LD hein. ah LD xam nga dafa idée nécessairement la les partis de gauche doivent être contre le pouvoir alors que ça c'est c'est une idée reçue tout simplement mais ça ne tient pas la route. Ce qui s'est passé ici au Sénégal en 2021, 2022, ça dépasse l'entendement. Ça ne s'est jamais passé au Sénégal. il Gis a une euh, manifestation où on a brûlé l'université. Même en 68, ça n'a pas eu lieu. Des manifestations où on a saccagé... Tu police Université, Totko, Talko, non damm étudiants Dans ta universités. université c'est des populations civiles ñoo université même en 1968 amul lo raw ta université jamono lay wax da am étudiant bu ñu dóor bal mu faatu euh, waaw quand même euh, lolu c'est des bavures lolu c'est condamnable mais li xew 2021 2022 mosta am Sénégal université bu ñu tal ay biens publics et privé, yo xamné ne dañ leena a yàq ay magasin et cetera détruire ay BRT dougal cocktail molotov ci bus Tata hmm. ba ñaari nit dee ci lolu mo am Sénégal. est-ce que itam c'est une violence aveugle. est-ce que lolu itam du li prouver échecu Macky Sall ndax bu fekkee né ab mbolo yi mbolo ñi nga xamante ne. junniy junniy doomu aadama euh, jóg di def lolu ça veut dire que euh, am fa nga xamanté ne waroon nga ko faté té te ko fa. non pour moi, ce n'est pas l'échec de Macky Sall c'est des nouveaux venus en politique ceux qu'on appelle des politiciens improvisés qui exercent cette violence aveugle euh, une une tentative d'insurrection de de déstabilisation du régime qui est anachronique. C'est-à-dire ça, c'est d'une autre époque waxuma ne damay condamner violence dans l'absolu l'Algérie a lutté contre la France dans une lutte armée la Guinée-Bissau a lutté contre euh, les les armées portugaises mais ce n'était pas une violence aveugle c'était une violence avec un objectif violence de mon violence c'est euh, c'est Nicolas ah. violence du violence Yo, soo qui koo fermé les fermer bus pas un cocktail molotov ay voyageurs yo xam ni sen yon nekkul ci dara. bu ngeen nekkee opposition bu ngeen opposition ci ci Abdou Diouf lu ne def ngeen ko. mais ça n'a jamais été une violence aveugle jamais c'était une violence bo xam ni elle était réfléchie elle avait un objectif mais ici c'est une violence aveugle une tentative de déstabilisation d'un État suñu pays africain avec leur État fragile pour déstabiliser l'État c'est comme quelque c'est comme s'il y avait une mouche ou un cafard sur ta tête et j'utilise un marteau pilon pour pour tuer cette mouche tu tues la mouche mais tu détruis en même temps la tête que tu es censé protéger c'est ça qui s'est passé ensuite je importance dans un pays où il y a eu deux alternances démocratiques et pacifiques. Des organisations de l'opposition ont gagné les principales villes. aux élections législatives, presque nous tembo à parti au pouvoir. Waouh, ça veut dire que le chemin est là. Mais yon wo nga di jël beneen yoon boo xam da ngay utiliser violence pour déstabiliser l'État ça veut dire que il y a des sous soubassements idéologiques à ça et c'est ça qu'il nous faut déstructurer. justement lo len ci jangé, est-ce que jangé ngén ci ci doxalin. way Jangé nañ ci doxalin man lima ci jangé moy d'abord l'État a eu une réaction positive parce que on a dissous l'organisation en question. Il y a eu des chefs d'accusation qui ont été formulés contre les dirigeants. Et actuellement, le calme est revenu. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Ça, c'est le premier niveau. Deuxièmement, ça, c'est la réaction immédiate. Mais il nous faut détruire le, le terreau sur lequel cette violence prospère. Nicolas c'est <laughs> violence bi xam commencé destruction bi violence c'est dans les réseaux sociaux que ça a commencé et dans les médias par des insultes. Il da ngeen daan xaaj bàyyi ba guddi ngeen taf ay kayit. waaw léegi taf kayit amul nag réseaux sociaux moo am. benn la rek je suis d'accord réseaux sociaux moo am mais utilisation réseaux sociaux yi soo gisee kenn ci réseaux sociaux yi deful dara lu dul saaga di saaga di am des milliers de vues man bi ma gisee loolu ci réseaux sociaux yi ay kat rek yoo xam ne nii dañu am des milliers de vues laa xam ne suñu réew mi mu ngi jublu ci violence parce que kuy saaga pour convaincre. ah yéen yéen a que golawa wax golo wàccal gaynde yeeg waaw mais lolo c'est c'est normal c'est rien c'est rien lolo ci campagne la campagne électorale au contraire dafay neexal campagne bi mais fi, violence bi verbale ensuite violence physique ensuite une haine deux camps amener nous quoi koy wooye campisme en fait problème bi mooy les politiciens improvisés ont introduit le manichéisme. c'est-à-dire c'est non Nicolas Bayel politicien improvisé tamit da ngeen foog yeen yeen ñi nek ci parti yu fi fi yàgg rek yeen rek yeen a politique ken amul droit de def politique baisse ah, ku mu neex nga xey bok non comme ah, mu neex nga xey bok waye gan li ñuul ci sawmi gan ge ko fi indi. mais politicien improvisé yeen sax amul len politicien improvisé un candidat bi kañ la ci politique. am nañ ay politiciens improvisés mais politiciens ce euh, candidat bi kagn la. candidat bi est la ci politique. politicien improvisé. candidat bi. conseiller municipal au parti socialiste avant parti socialiste didano est politique conseiller municipal au parti socialiste bon du politicien improvisé ñi qui a ci politique bi cultivé wuñ bop euh xamuñu histoire réew mi ñoom ñoo indi mbir mi fii léegi nag réaction bi la réaction immédiate mooy nguur gi. affaire saaga moom da ngeen ko war a bàyyi teg fële parce que Macky Sall ci boppam day jël ay kat di leen jox ay audience ah ñoo xam dañ koo saaga fa saaga gën a ñaaw mu jël euh, di photo ak ñoom euh, di leen recevoir ak euh, leen may xaalis. loolu tamit xam nga il faut. il faut relativiser ah. loolu rafetluwuma ko. Ah waye saga ñi nga xamné ni ci réseaux sociaux yi té médias yi saga. wax ñu la nit ñu ñi pour man côté bi ñu xam nañ ko ça ne veut pas dire que ñun nak amuñ ay saga ci suñu biir mais fi yi ñi commencé bi ñi may politicien improvisé manichéisme pour le monde se divise en deux ñu ñom ñoy ñu bax ñi ñi and ak Macky Sall ñooy ñu borñi ñi deuxièmement manichéisme dans le temps depuis l'indépendance jusqu'à présent dara lu bax amul ci réew mi lu bax li mu ngi wara commencer ci ñom loolooy manichéisme lolo indi extrémisme lolo indi violence aveugle bi ñu gis Sénégal légui nak réaction nguur gi c'est une lu bax la waaye dañoo wara attaquer terreau bi nga xamné ni fofu le extrémisme yi di développé wu. Euh, coow li jamono ji moom mooy dépôt parrainage yi euh, gis nañ ñu bëri recalé lañ leen yenn saa ñu nee sax say parrain ay 12 mille wala dix neuf mille nekkuñ ci fichier électoral est ce que Nicolas loolu posé wul problème yéen ñi nga xamante ne yàgg ngeen di xeex pour processus électoral wa nga xamante ne dafa war a jaar yoon et aussi on pour ku ñu mettre à disposition des partis fichier électoral bi à temps fichier électoral bi code électoral bi dafa déterminer un certain nombre de jours bo xamné ni ci lañ wara mettre à la disposition des candidats le fichier électoral. mais ñu ñuy contrôler ñu ñuy contrôler seen i parrain xamuñu fichier bi lan mo ci nak ba chaque fois bu léegi après chaque élection dañuy def une revue du code légui yoyu ngay wax à l'approche après la la cette élection il y aura une revue des codes et on va rectifier en tout cas moi je suis pour qu'on rectifie les li nga xam ni euh, rectifier depuis très long depuis 92 après chaque élection il y a des discussions un dialogue et on dañuy rectifier li nga le leçon nga 200 plus presque 300 ñuy retirer parrainage 90 candidats c'est excessif Loulou, après chaque élection nous avons amélioré le améliorer système Nous nous la a donné nous, la donné le Sénégal non depuis 1992 Nous, la mos di après chaque élection dañuy tok waxtan dialoguer seet lan nous rectifier ci processus Il mhm. yan modification indi ci code électoral a une modification du ngeen euh, mbeur bu taxaw compétition amna waye compétition bi dafa wara dérouler ci règle justice mo yoré mbir mi su justice ne Sonko day bok day bok su justice ne Sonko du bok du bok réew yépp non la doxé doxe amul ben réew bo xamné ne dañu ne kumu neex rek nga bok sans condition lolu amul fen ragaluñu Sonko justice moy déterminer ñi wara bok ak nan la bokké Lolo lu am lolo mo fi am. mais élimination bi. parce que nous, dañu yep ne wa nguur bëgg éliminer euh, candidat yu bu facilement euh, élection bi. mais Ken éliminer. ndaw ngeen parrainage euh, citoyen bi. parce que Ken bëggula éliminer Ken. justice moy sét kan mo wara bok ci yan condition lay bokke ak kan mo warta bok lolu justice moo koy régler code électoral bi c'est un code consensuel parti yi ñoo set seet nan lañuy ñuy code électoral bi ñu bari mbaa ñep d'accord ci hmm. bon lolu amul ben problème waxtu wi jeex na Nicolas Ndiaye mm-hmm. euh, golo wàccal gaynde yee gaynde yi bëgg a kan kan mo wara a way <laughs> ñun de Amadou Ba mooy suñu candidat te ni ma ko gisee foog naa ne yaakaar naa bu baax ne dina gagner de préférence au premier tour. Hmm. na ngeen jëlee woon Laye Wade quatre-vingt-dix-neuf mënoo leen ko jëlee Karima. ñun ànduñoo Karim ñun Amadou Ba lañ àndal Karim PDS candidat PDS la. ñun Amadou Ba ñun Benno Bokk Yaakaar benn candidat lañ am muy Amadou Ba te ñu ngi liggéey pour ñu fal ko. jërëjëf Nicolas Ndiaye Sénégal euh, nekk ci jàmm nekk ci stabilité. Hmm. jërëjëf njiital LD ñu ngi lay gërëm ci ci waxtaan wi. ba beneen incha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Georges jërëjëf Fati. chez À partir du 10 décembre, retrouvez tous vos produits à des prix exceptionnels. Téléviseur smart à partir de 66 000 francs CFA. Téléphone à partir de 21 900 francs CFA. Des cuisinières à partir de 72 500 francs CFA. Des climatiseurs à partir de 134 900 francs CFA. Des réfrigérateurs side by side à partir de 395 000 francs CFA. une tablette de dernière génération. Congélateur, chauffe-eau, produits cosmétiques, meubles, Les pour leen pour ci doli, produit boo Soumari cadeau de fin d'année. Mani Li. bu mu leen rëccu waay commande